la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 ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fa la la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax tàmbalee si nuyoo bi ak ziar bi cheikh Mouhamadul Muntaka moom cheikh Mouhamadul Bachir mi toog jotaay Serigne tubaa di ñaan mu yàgg fi loolu tànd ak wér waaye di beral nuyoo ak ziar di faal Fall moom moo Modou Mbende Fall mi toog jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall sunu borom yàggal ko fi lool te tànd mbokk yi ñu ngi leen di nuyoo fii ci Mbacké ci institut islamique di liggéey bu rëy bi nga xamante ni xam ngeen ni Cheikh mun Mountakha Mbacké euh, tegoon na ko ci loxol euh, Serigne Cheikh Jëmb Fall euh, mi toogoon jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan suñu borom dolli ngërëmam te taañu si barkeem barke maam Cheikh Ibrahima Fall xam ngeen liggéey bu rëy bi nga xamante ni hmm. euh, tàmbali na ko fii bañ ko jox ak léegi li si njëkk sëñ Mamour mooy wodd bi nga xamante ni woddaat na ko barab bi te barab bi sëñ Mamour ñu fàttali ne ab stade la woon maanaam barabu fowukaay yàgg na wax euh, taarix bi ni ñuy def ba mu tàbbi si loxol Cheikh Mouhamadou Mountakha mu ne lii saa baay Cheikh Ibrahima rek moom moo moom moo moo si doy jébbal ko kon taalibeem bu mag boobu di sëriñ Cheikh Jëm Fall yàlla ñu ko suñu borom doole fayal mu liggéey ko ba toll tey jii lépp tàbbiwaat si loxol am Amdi Fall moom Serigne Modou Mbende tey sëñ Mamour dina ko kon euh, àllarba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre fii ci Mbacké sëñ bi nañu boo leen xëyee dem leen ngeen tàmbaliwaat liggéey bi gannaaw xew-xew yi ña xam moo amoon si gannaaw Cheikh Mouhamadou Mountakha ni boo leen noppee gont fekk ma Daarul Minan kër Cheikh Mouhamadoul Bachir ñu fanaanee tudd yàlla yëndoowaat ko incha allah muy 24 heures yoo xamante ni baatu zikrullahi laa ilaha illallah xam ngeen ni njukkalee ko maam Cheikh Ibrahima Fall la wax sante ko Serigne Touba Khadim Rasoul kon tey jii looloo ñu indi fii wane ni liggéey bi tàmbaliwaat na gis ngeen mbooloo mi jóge nañ fu nekk daal di ñëw fekke si liggéey bu rëy bi tàmbaliwaat bi nga xamante bu ñu fi jógewaatee ñaan nañ suñu borom mooy jox Serigne di la jaajëfal bu di jaajëfal mbokk yi ñu topp ci biir réew mi ak ci bitim réew di santaat sunu borom baax ci desuwaat gi desuwaat fii ci euh, ci stade bi fii nga xam ne stade ba woon te xam nga ne Serigne Cheikh jëmm euh, nii mu mel yëpp moo ko ni melal tey Serigne am ni Modou Mbène war a yeggale liggéey bi ndax Serigne bi teg ko ci loxoom moo waxoon ne bis bi tey nañ fi xëy si euh, tàmbali ko su ko defee suñu noppee àndandoo ak mboolem mbokk yëpp dem ci ki nga xamante ne bii mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha ngir yëkkati turu yàlla bi nga xamante ne bii moom la ñu sant ngir diggante tey ak suba murid yaa ngi koy waajal bu baax a baax gis ngeen ne mbooloo mi ñëpp ñëw nañ njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall mbooloo fukki buntu kër yi ak ñaar ñëpp ñëw nañ tey ji ànd ak sëñ Amdi Modou Mbenda ci liggéey bu tedd bi mm-hmm. sëñ Aliou Badara xam naa du ma sore rek dama laa jëbal kàddu gi ndax ñàkkul ay waxtaan yoo xam ne war nañ ko fay jël ci mbokki taalibe yi waaye nañ jàpp ne daal tey dañoo ñëwoon ngir tàmbali liggéeyu stade bi buñ noppee dem ci Cheikh xam ne mooy tur yàlla bi incha allah dañ leen ko doon wan rek ànd ak sunu caméraman ni ngeen koy gisee si image yi boobu ba léegi eh, kilifa mboolem kilifa yi fas yéene incha allah dëndal ndigal li bu ñu jógee si bésu zikrullah boobu nga xamante ni bésum lëmb la ni ñu ko waxee dina ñeenti waxtu si ngoon ba si ëllëg si ñeenti waxtu si ngoon loolu la Cheikh Mouhamadoul Mountakha santaane xam nga sëñ Mamour fa la ñu jógee ci wàccaay ñu ngi si bu wër a wër mbooloo mi ngeen gis fii li ñu takku takku bu ñu noppee ñoom ñëpp fa la ñuy bàbbi jëm ànd ak ni nga xamante ni moom la ko sëriñ bi diglee di akuk dal maanaam mën a teewlu zikrullah kaddu sunu borom bi. mi nga xamante moom lañ ko tasee si biir kër waaye loo si mën di xam daal mooy euh, Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue ñu ngi ñaan sunu boroom gën kaa kattanal te yàggal ko fi sëñ Mamour xam ngeen ni mooy jëwriñu sëñ Amdi Fall mu sëñ moo Modou Mbenda di jëwriñu liggéey bi waaye nag ànd kaak jël lépp tegaat ko si loxol ay doomam ay taalibeem di sëriñ Fallou Fall moom sëñ Mourou Aminta ànd ak sëriñ Moussa Mbar ak mbooleem njaboot sëñ yi waaye ànd kaak ay rakkam ngir nag daal di jëmmal liggéey waaye sëñ moo Modou Mbenda mbooleem rakkam yi teew nañ si barab bi ngir jëmmal ndigal li nga xamante ni mun Moundaxa joxe na ko sëñ Mamour sëñ Moundaxa ñaari ndigal yi di liggéeyu tàmbaliwaat liggéeyu institut islamique bi ngir war ko wóyal waaye waaye bisub zikrullah ni bisum lëmb damaa bëgg daal ñuy laa ma toog teewalu ko ànd ak Baye Fall yi noo ko jàngatee. Eh, sëñ Aliou Badara xanaa di sant ndax eh, lépp rek day ci juble woon maam Cheikh Ibrahima Fall ndax wax na turu yàlla wi cër bi ci Cheikh Fall am la bëgg la bëgg a feeñal maanaam moom la xam kon sant nañ bu baax a baax a baax a baax. léegi rek la ñuy jot euh, yóbbanteb Serigne Falloum Serigne Abdou Khadir moo xam ne mi ngi noonu dugg ci jumaa ji ci jàkk julli tisbaar waaye dana ñaan ci barkeb Serigne Touba mhm. ñu am ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall am ngërëmal Serigne Touba Cheikhul Khadim loolu mi ngi koy ñaan nee na ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba ñu am ngërëmal Serigne Touba nee na dañu ko ñaanal ci biir si ndax Baye Fall yi ñëpp koy waajal insha Allah xam naa ci kanam tuuti ci loolu la ñuy bu ci yàlla nañ ne la sëñ Touba waxoon da Cheikh Rafal waxoon ne ba àddinay tukki rek maag sëñ Bamba la ñu ci lu wér loolu Cheikh Mouhamadou Mountakha confirmé mm-hmm. waxoon na itam nag euh, yoonu sëñ Bamba yi may royukaay bi ku ma jéggi weesu nga diw ko ak siwul maa bi da nga yitte woo xam Cheikh Rafal mooy kan xam nan ngay def ba mën a jëriñ ci moom loolu la sëñ Mountakha bëgg moom la bëgg ndax woote na fi bisub xasaayit mm-hmm. ni nañ ko yendoo xasida sëriñ Bamba yi mm-hmm. tàmbali ko bëccëg bi ba euh, euh, juróom ba ba cinq heures ngoon 17 heures ñu daal di waaye tey mu ne nañu def zikrullah maanaam fanaanoo ko waat ko mooy li ngay wax rek bële mu ngi ko wootee àllarba fukki fan ak benn la ko woote woon bii mu woote ko àllarba ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan benn fukki fan ak benn boo ko takkalee ñaar fukki fan ak ñaar lay doon sëñ Mamour loolu moom takkuk sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha moo xam li mu si jublu waaye nag yàlla nañ ko fekkee te tal ko te ndigal li Baye Fall yi ñëpp wuyu si nañ te loolu rek moom mooy euh, euh, xemamteefu Baye Fall sëriñ bi woote ñu daal di koy wuyu kon nag Baye yëpp ñu ngi leen di soññ soññaat si liggéey bu rëy bii incha allah fas yéene koo ànd ak Cheikh Mouhamadul Mountakha fas yéene koo ànd ak si ñam di Fall Modou Mbende fas yéene koo ànd ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall bi sëñ Mamour kon liggéey baa ngi ni tàmbali ne nañ fi dellu siwaat wax leen liggéey bi fan la toll incha allah euh, ànd seeg euh, suñuy technicien ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax sëñ Fallou Sow El Hadj Fallou Sine Abdou Sène ñu ngi koy siyaar waaye xam naa ni kon tëjee jotaay bi rek jëli bi ah, ndeysaan baa ngi nuyoo sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ci turu jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall Dia di Cheikh Modou Moustapha di Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda Fall mi ngi nuyu njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp teg ndigal ni nag ci jëwriñam ji di sëriñ Cheikh Fall moom Cheikh Modou ñu di ko wooyee nag Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng Serigne bi nee na moo joxe kàddu yii jëwriñam ji di sëriñ Saliou Fall ñu di ko wax nag sëriñ Saliou Fat saw mi nga nii toog ci mbaar mi moog rakam yii nga xam ni ñoom la bokkal Cheikh Ibrahima Fall ñi fekke jataay bi nag sëriñ bi nee ñooy. ginnaaw sëñ Cheikh ak sëñ Saliou sëriñ Cheikh Ngunda Fall sëriñ Fallilou moom sëriñ Aliou Fall Mbor sëriñ Fallilou moom sëriñ Abdou sakoor Fall sëriñ Mortala Fall moom sëriñ ablaay Fall Ndar day mel ni ñooñu kat ñooy mel ni ñu fi teew. ak Serigne Abdou Rokhaya Fall moom Serigne Mortala waa kër Serigne Mbacke Fall ñëpp a teew ci Cokke waaye nag dañoo fab kaddu yi dolli ci nag Serigne Assane Daaru Xafoor jëwri ni Serigne Saliou Fall ja fii daal Serigne bi nee fi teew. mooy njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp rek ñu fab seen kaddu ya nag jox ko nag sëriñ Fallilou Fall jawriñu sëriñ moo Aminta Fall naka jekk dañ daan fab seen lépp rek jox ko rawatina nag kaddu ya Serigne baa ngi nag nuyu mbooloo mi nag ci njabootu Cheikh Ibrahima Fall gii fi daje di leen xamal ni. kii woote woon moom ba muy woote nii rek la bëggoon ku ko wuysee wuysee ngeen ni nag te sëriñ bi nee na kaay leen wuy si june mooy indi leen dab yi buñ nee indi leen dab yi nag ku indiwul ndabam day mel ni kooka moom mën naa ñàkk moom kon sëriñ bi nee na yéen ñi indi seeni i dab yéen wane ngeen ni mënu leen a ñàkk yéen jëwriñ sëriñ Touba ja tam di moo du Maodo taxa nii rek nee na la ko waxe woon dama bëgg ñu wut bis boo xam ni dañ koy sant sunu borom ci baax gi mu ñu baaxee sëriñ Touba cant ga nag ñu defe ko nag turu yàlla ndax mooy li gën a màgg lépp waaye bis ba nag ñu njukkale ko Cheikh Ibrahima Fall neewul ñu cërale ko ko neewul ñu séddee ko ko dani ñu njëkkale ko Cheikh Ibrahima Fall njukkal nag kala defal moom ngay njukkal. kon sëriñ bi nee na loolu baat bu rëy la. day mel ni gan la nag ci biir murid yi. waaye nii la bëggoon nag. nu defe ko ne tàmbali nañ ko nag yéen. mu boole ca nag ni. liggéey bii ñu doon liggéey ñun waa kër Cheikh Ibrahima Fall nañ ko tàmbali waat nag ci bisub tey bii. ginnaaw si kurullaahi ji nag. tàkkusaan lay doon di ñeenti waxtu képp ba ñeenti waxtu yee dellu suwaat moo tax nag ñu bëggoon na xëy nag tàmbali nag liggéey bi soog dem nag te turu yàlla wa def nañ ko nag ba noppi nag ndax tàmbali nañ liggéey bi tey mu des nag turu yàlla wa sëriñ bi nag bëggoon xiiwal yii fi daje nu xiiwloo ko nag. te dem nag te turu yàlla wa waaye nag nee na la muy dénkaane nag aj wut ju ne ka koy dimbali mooy ka koy won na muy wute ak na muy amee ndax suñ la wonee na ngay wute te wonuñu na la na ngay man ngaa dem ba egg fa ñuy wute te doo am wala boo amee tam aminoo du rafet fa ñu jëm nag murid yi rawatina nag ñu njabootu Cheikh Ibrahima Fall gii ndax bis bi moom ñëpp a ko bokk waaye sëriñ bi nag bëgg ñu xam ni kenn du fa am dara ci lu dul nga yóbbu fa ab yar ak teggin loo fa yóbbu lu dul loolu doo fa jëlee loxoy neen sax nee na ab coono képp nga fa jëlee nee na. mu bëgg nag nu lamboo yar bi ak teggin yi yar bu fees dell ak teggin nga xam ni bët yi ñuy xoole sax ku la gën a lamsal say bët foofee gën la faa néewal ay wax ci lu dul ndigal gën la faa néew ak dégg ci lu dul ndigal yaay ëppale foofee ñu jëm waaye kenn mënu fa am dara daal ci lu dul ab yar bu ànd ak tegin sëriñ bi bëgg nag ñu tàmbalee ko ci jéegu yi ñuy doxe di dox nag doxinu tey wax waxinu tey def definu tey kenn bañ a morom mere moromam kenn ku nekk jàpp fam jëm ni tam fay fekk ak lam fay fekk ak ñam fay fekk lépp alali sëriñ bi la alali sëriñ bi nag lu ko am murid jàppee rek day defar loola waaye du ko yàq mukk loo gis murid bi di ko yàq di xeeb loola di ko tooñ dafa moomalewul loola rek sëriñ Touba waaye lu mu moomale sëriñ bi rek faaw dina ko defar defar rekk la ca def nee na waaye du ko yàq mukk nee na kon nag sëriñ bi nee nañ jàpp ni la ñu jëm fa ñu jëm lépp alali sëriñ bi rek la bu kenn werante bu kenn xuloo la ca des moom sëriñ bi nee na kenn waxaale wu ko kenn ku nekk na sa jëmmi morom gënal sa jëmmi bopp ji rek waxuñu sax nga yemale leen de alali sëriñ bi kat lañu te murid bu nekk. alalu sëriñ ba moo ko gënal alalam moo ko gënal jëmi boppam ja kon nag na kenn ku nekk def fa mu jëm ni la fa nekk lépp alalu sëriñ bi la kon du fa yàq du fa tooñ du fa lore du fa loroo kon sëriñ bi nee na jërë ngeen sëriñ bi nee na liñ dal nag ñun murid yi nun rek la dal murid bu nekk bu sañoon wenn ay du laal ab sëriñam du doon aw naqar du doon aw métit du doon ab coono te li ëpp ci murid yi lañu def te du noona xamadi rek tax ñu def ko waaye defuñu ko ngir seenug jublu moo tax nag loolu sëriñ bi di wax naan li wolof di wax naan yanu ko di dañuy déggoo dañuy yëgoo bala ñoo jóg ñii dem bari nañu lool waaye la sëriñ bi di njëkk a digle nag boole ci suñuy kilifa lañ àndal ñun bu suñ yoon nekk ci sëriñub jàmbur bu ñu kenn rey ci sëriñub jàmbur te sunub sëriñ nekk fi buñ buuxul buuxuloo buñ xat-xatloo buñ demee ba ca penc ma nañ bàyyi nag suñuy kilifa ñu dem fañ leen di dalal ñun ñii ñu yilif nag ñu nekk fa nga xam ni ñañ yilife fa ne mooy ca penc ma rek waaye bu yoonu kenn nekk ci ca biir kër ga lu dul ñu woola a rek ñu nekk ca penc ma nun murid yi su ñu wooyee nag par kenn ñu dem nag waaye loolu nag sëriñ bi nee na ñëpp ko déggandoo nag nag ku ne xool morom ja nag bu ko moromam bëggee def na ko xool nag bëti kuy bëtti ndigal nga ne ñuy fàttaliku nag baatub sëriñ Touba ba Cheikh Saliou Mbacké ñu ngi ñaan suñu ko ay ngërëm dafa wax ni murit bu nekk la muy ñee moromu muritam mooy lam ko gën a nuroo sa rek kon nag nañ xoolante ku ngeen seen muy jaay daraja di waaxu bëgg a ca kër ga yéen ñëpp xool leen ko bëti kuy bëtt ndigal la nee di dem kuy xëtt ndigal la nga nee di dem ku loolu nekk sam xel nag doo ko def mukk doo ko def lu te dara mënu faa jariñe nag lu dul baatum ndigal rek gàcceeg murid daal nee na mooy sëriñ bi ni dem leen nelewi nga yaakaar ni nag gàddu sab gopp dem ca tool ya wala sa semiñ mooy taxaam dara bu sëriñ bi neen dem leen nelewi seetal nag fa gën a nooy ca lal ya nga tëdd fa foofu rek la njëriñ la nekk kon nag ku dem fee di fa jaay nag leneen lu dul loolu lu la dal itam fasaasa na nga xam ni yaa ko def de bu la dalu fasaasa itam ca def nga lu dul ndigal seenu ni faaw na la dab rek kon jërë jëf na ñëpp yóbbu ab yar bu ànd ak i teggin sëriñ bi nee na jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sëriñ bi nee na xiiwal yi noppi na na nañ ñëpp nag ànd dem xiiwalu ji bu ñu noppee rek soog a jóg nag ànd sëriñ bi dem jërë ngeen jëf murid yi ndigal laa noonu 巴拉。 Allah